Bienvenue sur Salam Vision. taalibe Bamba eh, yóbbul ci kaw eh, yóbbul ci kaw taalibe Bamba baa ngi nii ne gë ma yàlla miin bi yonent baa ngi nii ne gë ay yuxul ci kaw ay yuxul ci kaw ay yuxul ci kaw taalibe Bamba baa ngi nii ne gë ay yonent baa ngi nii ne gë ay yuxul ci kaw ay yuxul ci kaw taalibe Bamba baa ngi nii ne gë ay su la ñu wax budul moom su kenn keneen ku koy jéem da ngay xaar day dem keneen du ko téye ci yomb lañ nekk di mbëgg di dem allahu la ilaha illallah Cheikh Fall Bamba rek a ñu doy bàyyi Fall baa ngi nii ay yuxul ci kaw yuxul ci kaw yonent baa ngi nii te bañ la. taal bu yàlla taal la. sànni si matt moo gën fay ko doomu jaamu gën la tu ci moom ci yàlla la nga bañ ko mu duma la daan la munoo ko tere xaale yow munoo ko tere xaale yow yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi yàlla bi taalibe Bamba la si taalibe Bamba ma si yàlla bi ay yàlla bi taalibe Bamba ma si